ndaje mi de li ko waral mooy dañoo séqoon nag euh, benn projet boo xamante état Sénégal moo ñu ko jagleloon ñun maître artisan yu Sénégal ñu copte ci 8000 artisans mais bi projet bi commencé ba léegi ay tolof tolof ci la ñu nekk ñun nag ci suñu wàllu bopp ñuy maître artisan yi boobu ba léegi ay sacrifice la ñu ànd projet bi ba agsi fii ñu agsi mais li ñu gën a bett mooy dañu xëy suba teel rek. ñu accélérer formation bi ñu war a former xale yi ñoo ngi jub ay événement am ay liggéey teewul dañoo seere suñu sentir libérer xale yi pour ñu dem defi formation yi actuellement vendredi la ñuy jeexal entrepreneuriat formation yi ñu ngi jagleel benn xale bu nekk deux mille cinq cent francs par journée nga war cee paas ñëw añ ci booy ñibbi nga paas ci dellu déjà entrepreneuriat bi suba ci ajjuma lay collecter ñu war a commencer alphabétisation bi li ñu gën a bett mooy bi ñu wooyee ci alphabétisation bi dañoo nañu xale bu nekk trois cent cinquante francs moom lañ koy jox imaginel xale buy bàyyi koo di jàng si Mbàkke yaa xam amul xuraa nga jóge yaa xam daaru xuddoos nga jóge yaa xam ndindi nga jóge yaa xam foo mënti jóge ci juróom-ñaar fukki dërëm munu laa indi Mbàkke ñu ne la ci ngay paas ñëw ci ngay añ ci ngay dellu ñu leen loolu mënul nekk li ñu gën a jaaxal mooy ki yor formation bi juddoo Mbàkke yaroo Mbàkke xam réalité yi fi nekk ci paas kuy déplacé wu ñaata ngay joxe moom mu walbatu ko ànd ci loolu ñun ñu rejeté loolu ñun nag pare nañ pour xale yi def formation yi parce que bañ commencé ba léegi ci ay sacrifice lañ nekk pour xale yi ñu certifié leen bourse yi leen jagle loon sax ba léegi benn xale jotugu ci diggante Touba ak Mbàkke un centime te bu dee góor quatre-vingt-cinq mille la war a jot ci xale bi bu dee jigéen mi ngi war a jot cent vingt mille kenn jotagu ci un centime te formation bi mi ngi jeex ñuy interpeller chef du gouvernement Ousmane Sonko ak ministre formation professionnelle parce que fa projet ba cagé wu suñu dikkee xaw ma ñu tàcc seen table mais dañ leen di ñaan ñoom ñu wàcc sur le terrain projet bi parce que projet bi trente milliards la trente milliards projet nga jagale ko nga ne xale yu paase Touba ñëw Mbàkke jàng si nga ne yoruloo ko ñun loolu vraiment jaaxal nañu lool lool lool lool lool ñuy wax chef de gouvernement Ousmane Sonko ministre formation professionnelle dañ leen di ñaan ñu wàcc ci terrain càmbar projet PEJA bii nga xamante nii état moo ko fi bàyyi woon bu ñu yem Tullgandoo ak Mbàkke kese nañ càmbar Sénégal gépp parce que projet projet ba mu tijjee ba léegi dañoo vérifier lépp tey li waral lii amuñ kenn ku ñu mën a adressé wu pour laaj ko numéro vert bi ñu génne woon numéro fictif la tey soo ci bëggoon ay résultats amul kenn koo mën a. adressé rek pour mu mu wax la ci dara ñoom ñooy toog ba soxla la rek ñëw loolu nag comme ñoom dañoo toll ci leeral te dañoo bëggum leer ñun dañ leen di jàppale ci leeral gi nañ ñëw ci terrain bi li fi nekk yëpp dañ leen ko wax lii moo waraloon suñu ndaje mi ñi fi nekk ñëpp ay maître artisan lañ bénéficié wu nañ ci pédia bi am na ñoo xamante ne ni seen problème mooy problème mu bagage yi leen jox dinañ ci ñëw léegi incha allah. Euh, projet bi maanaam ni ñu ko waxee woon ak man ni ma ko gisee c'est un peu différent ndax dañu waxoon mètre artisan bu nekk dalañ la jox une valeur de 1 million 200 1 million 300 ñu dem ba ci biir ñu wàññi somme bi ndax benn meul boo xam ne bu ndaw mi ngi jar 20 000 ñu la koy facturer ay 40 000 c'est cher meul bu mag boo xam ne mi ngi jar ay 45 mille ñu facturer ko ay 73 000 léegi ñoom ñu ne woon frais yooyu suñ ko dindee kenn ku nekk di dañuy ñëw ba sa atelier ñu indi la say bagage mais dañu toog ñoom un jour rek woote ay vers 10 heures 11 heures neen lañ ñëw Jurbel coûte que coûte ku ñëwul nag dañuy dem Euh, loolu nag doon lu metti loo xam ne ci ñun ñu ne woon comme que ñun suñu loxo jotul ci kaw te ñun dañuy wax calmement honnêtement disciplinement parce que ñun ay mag lañ yaakaar naa du ñu yàq ndax alxuraan dana xuli làq walaw kaanam mu ran donte dañuy teg paaka sa boli tamit wax waxal dëgg kon lii mooy li nga xam ne moom moo am léegi ñu lance appel ci kaw ci autorité yi su fekkee ñoom dégg nañ suñu xalaat nga xam ne day jaar ci yéen presse bi ko déggee mën a wàcc ci terrain bi ñoo fajal suñu soxla mais loolu daal métti na ci ñun trop daal waaw matériel am ñuy jot mais am nañu jotul mais jàpp naa ne ñu jotul daal ñoom ñu ba man mii di wax sax man jotaguma samay xale jàngee guñu donc suñu bëggee wax ne bon kuy jógee Touba yi ndaamata yooyu ñu la jox ay 300 350 loolu vraiment dafay xaw a métti léegi nag bëgg nañ ñu xoolaat mbir mi suñu wàccee ci terrain bi ñu jàmbaraat ko xool ko ñun daal mooy li nga xam ne moom moom ñu tax a jóg waaw yàquñu defuñ dara ndax ñu ay responsable lañ suñu xëyee suñu atelier la ñuy dem toog lu ñu yàlla wërsëgale ñoo xam ne lii la ñuy wërsëgale suñu xëyee ñu xëyaat artisan yi nag takku nañ fi ñu toll nii quoi am nañu ñëw am nañu ñëwut am nañu yëg am nañu yëgul dara nañu bénéficié wu c'est 87 personnes waaw mais am na ñoo xam ne daal ba tey jotuñ dañuy dégg rek daal foofu daal lañ toll pour le moment facturation bi dafa wuute lool boo gisee suñu doxu ñaxtu bi première une première partie libéré nañu xale yi ñu dem parce que dañoo jëkk wax pour 10 jours nañ leen jox 25000 francs seen déplacement bon deuxième partie bi parce que boobu dañu war def alphabétisation ak entrepreneuriat li ñuy njëkk a naqari mooy entrepreneuriat bi moo waroon mujjee alphabétisation bi moom moo waroon jiitu parce que koy jàngal na koy jàngal nu muy jàngee nu muy waxee nu muy bindee ba pare nga soo ko jàngal entrepreneuriat mais koo xamul koo xamul alphabétisation nga bëgg ko defal entrepreneuriat déjà erreur la mooy mooy premier première erreur bi foofu jox nañu leen vingt cinq mille francs pour dix jours cela dire que chaque jour deux mille cinq cent boo léegi mu am doon def deuxième séance bi quarante cinq jours quarante cinq jours bi ñu ba leen ko jox deux maanaam quatorze quatorze mille francs tous tous les vingt jours sept sept mille francs xam nga xam nga déjà quarante quarante jours rek muy quatorze mille francs kooku logigul boo ko xoolee boo xoolee xam ne logigul boobu bëgg nañu xale yi jàng parce que li ñuy def nii avenir u xale yi mooy avenir Sénégal ñun ñi bu ñuy lii bu ñuy former xale yi avenir Sénégal moo tax pour pour empêcher chômage bu métti bi moo waral ñu jàng xale yi mais bu ñu jàng xale yi aussi ñu teg ko si yoon parce que bu leen joxee une première fois vingt cinq mille francs pour dix jours une seconde fois ñu leen jox quatorze mille francs pour quarante jours kon dañuy jaxase ak xale yi kon nag ñoom ñu autorités yi nga xam ne ñoom ñoo say say say yokk projet bi bëgg nañu wàcc sur le terrain gis la réalité se passe waaw loolu la mais bëgg nañu xale yi bëgg nañu avenir xale yi mooy avenir Sénégal parce que ñun def nañu seen wargal am nañu métier mais léegi avenir Sénégal mooy mooy mooy avenir xale yi pour que Sénégal mën a jëm kanam il faut ñu jàppale xale yi sauf que chômage bi mën na wàññeeku et puis clandestin bi mën na wàññeeku bu ko defee nag bon ñoom ñoo si mën jàppale si yéen média bi lañ mën a jaar pour mën wax suñu doléance léegi nag oto la ñu ñaan bon le premier ministre ak le président la république ak le ministre de des des formations professionnelles mu ñëw taxawuñu bu ñëwee sur le terrain ndax xam nga ce waaw incha allah rabi loolu la ñu bëggoon ngeen jàppale ñu